plateau ci waaw yow léegi. mën naa sëgam ay ministre ak ay directeurs généraux du ñu wax ak sénégalais yi. un premier ministre ñuy dem ci contexte électoral politique mu pose un débat de fond sur les finances publiques nit ñi naan wii li mu wax du dëgg chiffre yi mu joxe baaxul mu ne yow mi nga xam ne ministre de l'économie nga woon premier ministre nga woon ministre des affaires étrangères nga woon directeur général des impôts et domaines nga kaay ñu wax ci fiscalité kaay ñu wax ci foncier kaay ñu wax ci finance publique kaay ñu wax ci budget kaa ñu wax ci endettement kaa ñu wax ci déficit budgétaire <laughs> kon li mu bëgg a mooy li ma li ci premier jàngat mooy kii li mu doon wax ah non il est sûr de li mu wax mooy dëgg ñaareel bi mooy ku bëgg Sénégal la parce que dafa bëgg imposer un débat public de qualité ay débat wu nenu baxal ak sac à mais ah non non ak ay saaga ndey buñ ne nee yee nga saaga ah non man moom Sonko yee moom xam naa ne ñun ah, mooy nekk suñu campagne à Dakar déet waay ah non Abass Fall na gars yi wax ak moom Sonko yee rek mooy dagg xolu gars yi na wax booy fu gars yi romb nañ leen ne Sonko yee gars yi shine mer saaga pétard <laughs> donc donc débat public de qualité la bëgg kon politiciens yi nga xam ne dañ leen dénk mairie puusuñu paasuñu saaga ndey nañ nañ leen xamee ak ak ak ak banditisme dans le champ politique te hmm. loolu dina jeex Sénégal nag hmm. ah mais ñun dañuy disparaître yow yaa njëkk wax Bougane Gueye Dany ne ko bu dee ñeme nga kaay toog ñun ñaar ñu waxtaan. mais ay seen nenu baxal duñ ñëw xam nga ko duñ ñëw yow xam nga ñëw duñ ñëw débat public de qualité ma man nee maa gën a man maa gën néew xam-xam passif grand yi moom duñ wax ak yow man maay ñëw wax ak yow kaay leen ñu débat ñetteel bi mooy président Ousmane Sonko dafa bëgg Amadou Ba Amadou Ba man su ma doon moom ah man du ma raté occasion bii de. Hmm. premier ministre bu Sénégal. jox la une occasion historique ñaata candidat ñoo fi nekk yow ngay tête de liste muy tête de liste mu ne kaay ñu sur ces questions nga ne yow yaa ko jàngaloon ENA yow yaa ko formé la l'administration fiscale mhm. yow set nga yow am nga xam-xam ah non mais il faut que man je vais pas cette occasion historique pour taxaw nag wan sénégalais yi ne Sonko man maa ko ëpp xam-xam mais man sénégalais yéen da ngeen juumoon ci présidentielle yu weesu mhm. ndax làpp yi ma làpp daa métti donc ñett yi laa ci jàngat Sonko li mu waxoon moom il est sûr de li mu nekk mooy dëgg. Mhm. moo tax mu ñeme débat bi. assurance daal la ci am. waaw ñaareel bi mooy bëgg na Sénégal parce que débat public de qualité la bëgg a imposer. Mhm. ñetteel bi mooy Amadou Ba nag ah non su ma doon yow damay jël. occasion ah dañ la may tànk tànk. ah non da ngay jël kaa ñu bëri. ah ñoo dañ ko may tànk dañ ko may jox nañ ko sujet yi looloo gën a neex. ba dikk préparé la. ah jox nañ la sujet yi. Ah, demal jàng soo ko ñëw ñu def examen ah, ah, dëgg yàlla lii neex la waay yow de joxoon sujet yi bugaat léegi man maa ngi xam naa ne waa RTS su ngeen kiiwul waa Sénégal set dinañ ko organiser donc ngañ dem ba fii bugaat ngay toog fii après suñ paree. du mus a ñëw Ousmane Sonko toog. du ñëw après Amadou Ba toog. non man dinaa ko organiser ko ñëw. boo leen doon fay ay milliards duñ ñëw duñ débattre ak kenn ku bokk Pastef surtout nekk aux affaires ñun ba ñuy nekk ci opposition bi kenn nanguwul débattre ñu ah. nekk pouvoir yor chiffres yi toog ci toog ci données yi non ils ne le jamais di waxtaanee xam-xam pas saaga nag non ay bojo bojo jooy génn naan dañuy débat ak yow te saaga dañu am ils ont l'injure à la bouche non doo débat ak ñoom mais ñoom ñi nga xam ne ñooy leader politique yi ah qu'ils viennent débattre Sénégal set su ko defee nag suñ paree jublu ci Ousmane Sonko ak Amadou Ba donc maa ngi ñëw. bonne chance <laughs> parce que Grand Yoff sorewul ak Sacré Cœur <laughs> merci alors euh, suñ jógee Sacré Cœur damay dem directement nag bi yoon dem ba Kédougou parce que Kédougou donc ak euh, lu jege dara fi nga xamante ne ni moom mooy Tamba euh, Bakel président dem fa. Euh, lu yàggul dara foofu moom sa sa sa sa diwaan la daanaka ndax jaaroon nga fa bële passé ma gis la yow ak ministre Birame Souleye ay ñoom euh, Moustapha Guirassy et tout mais mais mais mais euh, lan mooy ampleur u yi nga xamante ne nii jàpp nañu ne inondation yi causé na ko foofu ci zone yi ma tudd yëpp Ngagne Demba Touré. waaw tout d'abord nga may ma ma saisir occasion bi pour massawu sénégalais yi nekk foofu yëpp. Mm-hmm. muy Matam muy Bakel muy Goudiri muy Kidira mooy fépp. effectivement ci inondation yi fa am ci jéey yi fa am. franchement mm. métti na lool. Mm-hmm. li ñu jiitu mooy ñaanal leen suñu borom yàlla génne leen ci xat-xat yi. Mm-hmm. Euh, ñaan yàlla taxawu leen. mais ñaan yàlla jéey yu mel ni néew fi ci réew mi. Mm-hmm. amiin euh, li ci tegu nag mooy euh, wax ni c'est un phénomène naturel quand je naturel mooy c'est les effets du changement climatique. parce que tey tout le Sahel est en inondation te Sahel di am inondation yu toll nii loolu dafa am lu mu lay wan ci changement climatique nga xam ne dëkk africain yi du ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo créer facteurs yi mhm. mais ñoo koy gën a subir mhm. donc euh, fleuve bi jug na ndox bi bëri na mu déversé wu ci population yi loolu loolu lu jéggi dayoo la mhm. li ci waru garu état bi nag lan la mooy dans le court terme ñu apporter ñi ñi des solutions urgentes. Mm-hmm. ci diir bu gàtt. te loolu lan la. Mm-hmm. ndox bi lan la def dafa jëlee ñi ñi seen kër. Mm-hmm. kon première mesure lan la utal leen ay site de recasement. fu ñu nekk daal. état bi bi ngi ci wala nekku ci. dégg naa sax joxe na fa koppar huit milliards. waaw balaa loolu mais man du ma wax huit milliards parce que chiffre la. mais lan ak lan la nit ñi soxla ak lan ba xam état bi nga koy def wala def ko loolu mooy tëj débat bi man Sénégal dañuy débat débat yu métti. yoo mais dafa yomb. ñii lii moo leen dal lan moo leen lan lan moo ko war a saafara après ñu laaj ba xam état bi mi ngi ci wala nekku ci après dinañ xam ba xam li ñu war a def def dañ ko wala defuñu ko. plan Orsec nañ ko def non président ñii dañoo waroon annuler seen meeting non ñii lii moo leen dal lan ak lan lañ soxla est-ce que état bi mi ngi ci. premièrement mooy dañ leen génnee seen dëkkuwaay. Mhm. nga déployer armée armée def ay tentes pour recaser leen. loolu mooy premier élément ñu am fu ñu nekk déjà. Hmm. mën a tëdd mën a dallu mun a julli mun a def leneen. comme ñu nekk seen kër. waaw donte duñ am même confort bi. Hmm. deuxième bi mooy bu ñu demee foofu il faut que ñu lekk il faut que ñu naan. Hmm. loolu moo tax nga nga nga nga dégg dund dund bi ñu yóbbu. loolu mooy ñaar. ñetteel bi mooy dañuy soxla ay soins soins yoo xam ne ci seen jëmm la yab la jëm mais loo xam ne psychologiquement armée aussi teg dispositif pour loolu. Mhm. li ci des dispositif de suivi lay war a am ak nag dans le long terme teg système d'alerte bu lay permettre bu lii di waaj a am nga mën ko xam te nga jigile ko. mais justement loolu nag ñëpp xam nañ ne ñiy falu nii 2 avril nag dëgg yàlla képp ku nit bu honnête amuñu woon mooy kon donc débat bi lii la du 8 milliards 100 milliards 1000 milliards. parce que ñoom ket boo waxoon huit milliards lan lañ def duñ la ko mus a wax. Mhm. non c'est simple ñii lii moo leen dal lan lañ soxla est-ce que état bi mu ngi ci walla nekku ci. mën mhm. na bañ a mate mën na bañ a toll ci niveau bu ko état bi di yaakaaree moo tax ñiy woo Sénégalais yëpp ñu def élan de solidarité. maa ngi rafetlu tey si rajo tey ba may xëyee dama dégg si rajo bi ñu ne Arouna Dia yóbbu na ay ay ay ay ay vivres yóbbu benn cargaison mais je je mais dama ko saluer. ñu ngi koy remercier ci loolu. Mhm. dégg naa Serigne Mboup aussi yóbbu na ci ah, yóbbu na fa ak bépp sénégalais bu def dans la solidarité loolu nañ soxla mais pas ay politiciens yu dem di ci coo di ci di di ci défier les forces de défense de sécurité muy indi muy indi ay coo mais malheureusement les sénégalais taluñ leen sax les gens sont sur des priorités mais foofu yan leçon la ñu mën a tirer ci inondation yooyu noonu te sànq wax nga ko mais aussi euh, prévenir yi nga xamante ne nii moom ay catastrophe naturelle yi di ñëw ci fu mel yooyu lan la état fas war a mën a def concrètement pour tirer ci ay leçons. waaw comme li ma wax parce que lii yëpp bu paree dañ koy évaluer. Hmm, évaluation état mënul day am wax lii ñaata la jur ci dégâts ñaata ñoo xam ne perte nañ ci seen seen kër peut-être duñ ko récupérer waat dégâts économiques dégâts sociaux dégâts environnementaux. Hmm. su paree ñiñ ci war a ndàmp état daf leen war a ndàmp. dañ leen di ndàmp du dëgg. Hmm. su paree nag ñu teg dispositif d'alerte pour lu mel nii buy waaj am wala bu waree am. naka la état bi war a def pour jël les devants mooy nekk dans la prévention. Mmh. loolu mooy li war a am en naval mais en amont et daar daar li war a am mooy des solutions concrètes urgentes et non pas une politisation qui peinera à réussir parce que les Sénégalais sont conscients. alors foofu noonu daf may permettre mu def benn brèche mais en attendant moom may la nga naan sa ndox tuuti ndox maa ngi lay sonal alors yéen ñi ñuy suivre un peu partout ci réew mi baa ci biti réew maa ngi leen di jaajëfal entretien yi leen di jox la tey ji gan gi du kenn ko dul maître Ngagne Demba Touré nekk coordonnateur national bu GPS waaye tamit nekk ki jiite SOMISEN donc ñuy waxtaanee réew mi ak tolluwaay bi justement SOMISEN boobu noonu ah di wàllu mine ak ñoom pétrole ak énergie consort justement transition bi daf may permettre ma ñëw ci benn xibaar. mooy interdiction orpaillage le long fi nga xamante ni mooy fale mi Ngagne Demba lan mooy les raisons principales yoo xamante ni moom moo leen poussé ba ngeen dem ci interdiction de payage traditionnel à 500 mètres de fi nga xamante ni moom mooy fale mi. merci beaucoup li ko indi d'abord mooy une gouvernance de proximité. parce que gouvernance le ministre de proximité voilà parce que le président de la République bi mu jëlee. Euh, nguur gi le soir ñu ne premier ministre Ousmane Sonko moom nañu fal ñu teg si ñetti fan ñu constituer gouvernement bi li ñu waxoon mooy gouvernement de proximité. Hmm, gouvernement de proximité. président de la république yeesal ko ci premier conseil de ministres. Hmm. loolu nag ci la la ministre Birame Souleye Diop teg tànkam. ni mu ci tegee tànkam lan la mooy au mois d' avril non le 8 mai mu njëkk a def première visite. Hmm. fële ca maatam nendoori mhm. jël ay mesures am na suivi boo xam ne dinañ ko teg le vingt six et le vingt sept mai mhm. boobu man maa ngi doog jël service à la SOMISEN le vingt quatre mai donc deux jours après mhm. ma ànd ak moom ci délégation y sept ministres attention c'était pas uniquement le ministre Birame Souleye Diop kon mais le ministre des mines moo coordonné en réalité la visite bi ngi nii voilà non du bii. du bii beneen bi li li GCO la e woon. waaw bii la bii la lii la ministre Yacoba Diémé la ministre du travail. waaw non du El Malick El Malick du y avait sept ministres. y avait ah, le ministre de l'environnement y avait le ministre de l'éducation y avait le ministre de la pas de la santé mais y avait le ministre du travail. en tout cas sept. voilà mais ministre de l'environnement bi mu ñëwee ñu wàcc sur place. ñu constater les dégâts. parce que bu ñu toogoon gis ay rapport rek doo m a xam l'ampleur des dégâts. ñu taxaw ci kaw pont boo xam ne bi ñuy taxaw affaire bi day yëngatu. Hmm? oui je me rappelle. tiitu leen ah non non looy tiit saa Sénégal boo gisee problème bi looy tiit. allez-y parce que am na Sénégalais yu fay jaar tout le temps. ñu taxaw le ministre de l'environnement waxtaan ak le ministre de l'énergie le ministre des forces armées ñëpp taxaw ñu ne lii il faut des mesures urgentes. Hmm. parce que bu ñuy exploiter li ñuy wax l'exploitation parce que l'exploitation minière ñetti forme d'exploitation moo am. dafa am l'exploitation industrielle mooy grande mine comme fi ñu visité woon comme Sabodala mhm. mais dafa am l'exploitation minière semi-mécanisée mhm. te boobu tamit day def ay jéye ci environnement bi mhm. mais dafa am exploitation minière artisanale am ñu koy wooy hors paillage hors mu nekk loo xam ne yàgg na fi te waruñ ko jéem a faagaagal parce que ay sénégalais ñi ngi ci am na ñeneen dudd ay sénégalais te ñu war a ko encadrer à travers des couloirs d'orpaillage à travers la formalisation à travers la formation à travers l'outillage mhm. dinañ ci ñëw inchallah à travers le dispositif de commercialisation et de contrôle de la contrebande mhm. ñu ngi ciy liggéey mais ñu gis ne exploitation minière mhm. artisanale bi ak semi mécanisée ñu ngi def jéegi jé day jéegi dayoo ci fleuve bi te bu yàggee day assécher fleuve bi da koy wowal da koy giifal te li koy indi mooy produit toxique li ñuy utiliser mooy li ñu wax cyanure bi ak lu ñuy wax mercure bi. ci loolu la autorité yi. jébbal rapport président de la république yëgal ko li xew. président perdrewul temps ci gaaw gaaw mu jël un décret interdire ci espace bu leer ne diggante fii ba fële jëm ci fleuve bi ah dañu interdire nag ku fiy def exploitation minière fii ñetti at. xam nga loolu mooy lan. état buy renoncer parfois à l'économie pour préserver l'environnement. mais ba du am impact ci population locale non non dinañ am mesure d'accompagnement parce que li am solo mooy comme je l'ai dit pour l'exploitation minière artisanale il faut encadrer ko par par l'immatriculation par même le financement pourquoi pas par la formalisation mais par l'aménagement des couloirs d'orpaillage te couloirs d'orpaillage yu bëri yu ñu waxoon ne dañ koo def en 2015 ak yooyu mais yu ci bëri nekkatul à jour parce que amatul dara. Mm-hmm. te parfois sax dañuy empiété ci ay sites mine industrielle yoo xam tamit il faut ñu wax tamit parfois problème bi jugeewul aussi ci population yi ci mine yi la jugee ci minier la jugee. Mhm. donc du indi problème mais li ci am solo mooy un état qui renonce parfois à l'économie par un souci de préservation de l'environnement loolu mooy dañu inscrire ci logique de durabilité nekkuñ ci di nekkuñ dans la complaisance mais nekkuñu dans des dans des gains court-termistes. Mhm. loolu c'est extrêmement important donc c'est l'une des mesures phares fondamentales essentielles fondatrices dans le secteur minier. mais nu ngeen bi. waaye li koy li koy assure mooy administration territoriale bi ngi def liggéeyam pour déjà délimité nañ fan ba fan la xam ko précisément. Mhm. li ci des mooy les forces de défense et de sécurité moo tax man la visite boobu noonu c'était pas pour rien mu nekk visite coordonnée avec sept ministères. parce ku ci nekk da ci am un rôle. Mhm. te le ministère des forces armées. dina ci def liggéeyam. mooy surveillance frontalière bi war a am. mais coopération bi war a am avec Mali et avec Guinée parce que fleuve bi dafa borde dafa ñetti dëkk ñoo ko borde il faut une coopération régionale entre nos entre nos frères maliens et guinéens. pour ñu ñu mën a juguler problème boobu définitivement. et que ñu dem vers une exploitation minière euh, économiquement profitable à l'État et aux population mais écologiquement durable. alors foofu tamit daf may permettre ma wax ci pollution wu Falémé bi ak gestion des ressources Ngagne ba yan impact ñoo am yu gën a grave ci wàllu pollution bi ci Falémé bi ci environnement bi ak wàllu wér-gu-yaramu ñi fare foofu waaye tamit euh, yan mesure la ñu war a mën a teg en place euh, ngir au moins protéger cours d'eau yi au Sénégal. waaw loolu nag li ko li koy indi mooy parce que ndox dafa vital. Mhm. ndox dafa vital te fu ndox am. dafay am benn atractivité naturelle buy am. surtout ça kon nit ñi dañuy ñëw mais ndox aussi fi muy nekk mais ay ressources dafay am ay am ay ressources halieutiques day am ay mhm. tey suñu pétrole bi ci offshore bi la nekk ci géej gi. effectivement donc naka ngay fexee ba yow exploitation yi xam nga indi loolu mooy comme li may wax. état boo xam ne population yi ñoo koy jiitu. Hmm. ba def ay jéye muy doog a ñëw nekk dans l'aspect curatif plutôt que dans le préventif. Hmm. leneen li ko indi mooy ay entreprise yoo xamante ne état da leen bàyyi ba seeni projet du ñu def étude d'impact environnemental yi war hmm. ah oui kon am na ci mais daf mais ce secteur minier bi l'un de mais l'un des ventres mous du secteur minier au Sénégal c'est le non respect des normes environnementales kon c'est compliqué le ministre Daouda Ngom day jooy rek dañ ma baal mais tellement parce que moom c'est un non c'est un environnementaliste ouais, en ouais, fait ouais. de dans l'âme c'est un passionné jàngale ko liggéey ci. gisoo ma koy tooñ naan moom cravate verte rek lay sol. non non tellement daf ko gëm loolu nit ñi xam nañ ko. Mhm. donc aujourd'hui lii indi loolu comme li ma la wax. à mhm. l'échelle artisanale état buy saaxaan ba ñu ñi jiitu ko ci gox di yàq les cours d'eau di yàq environnement bi en général mais état boo xam ne souvent liy wër peggu ndox yi liy wër environnement bi projet yi étude d'impact environnemental yi duñ ko def comme niñ ko war a defee sérieux bi ci war a am waaye. mesure d'atténuation yi ñu war a def du am du am rigueur bu ci war a am moo tax ministère de l'environnement dina ci liggéey à travers certificat de conformité environnementale yi ñu doon délivrer ko par ci par là te doo def dara ah non il faut ñu ñu veiller à ça. kon exploitation minière euh, responsable yi dinañ ko mën a daal. Euh, non dafa am solo xam nga xoolal bi ñu dalay wax ci mine ba léegi. waaw dafa parce que mine c'est un secteur boo xamante ne amul woon une vision panoramique maanaam nit ñi xooluñ ko woon dans son ensemble parce que c'est Mm-hmm. c'est un tout e dafa lié sécurité dafa lié ak environnement dafa lié santé hygiène mm-hmm. surtout dafa lié question de de de, de droit social question des travailleurs leurs préoccupations dafa lié ak l'économie ñëpp xam nañ ko dafa lié ak les finances dafa lié avec les la défense parce que zone minière tamit day attirer ay ay filières mm-hmm. ay filières de de réseaux organisés ça c'est euh, surtout en Afrique de l'Ouest dans le Sahel